Oui, d'abord Oui, eh, eh, d'abord eh, Oui, d'abord Nama jula sangkarangka, sakatarangka ni watarangka, boro-boro minna ni bro minna, nadia de mansaya, nadia de kandaya, nadia de walia, nama jula sangkarangka, boro minna ni. Allah barakah barakah. Jalol, Allah barakah. Ah, para acá. bi kontondorote janfala B, Contona, kontonna folo wolo Munjiati mati km la Regional Kiaman falan sonko anin the mayor of kanvi municipality ahmed Ben Mal mbal Contona. a na kontaan na lool di leen gërëm di leen sant mu ne tey nuyoo bi du si kër bu mun a bëri di nuyu suñu njaatige ñi nga xamante ne kooku mooy Jonal Chairman Fadang Sonko ak suñu njaatige mi nga xamante ne mooy Lord Mayor Talib Ahmed Bensouda Organizing Secretary KMC Baba Ko Lord Mayor jërëjëf waay Widaabo Widaabo Viudamo! Viudamo! Viudamo! Labdala Nanya Faya Oknolo, now reserve for the 5th of December. We will have the fireworks. Ah! Akali Sabari, ako on the 5th of December Eve, Olunemu, Petaro Faila, Umajur Mojanila, metta ka bola keroo ba Ousseynou dana lakka daay ji dana lakka daay ji ñëpp a kontaan mbe national president of the party ani other executive committee members ne mbe be kontaan na a nee na di nuyu waatoon executive members ñi nga xamante ne ñoo yore te alhamdulilah ñoo ko jàppale loxo mu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax Alhaji Bolon Sonko ko ani jeefe mal me bi janto mbee bee kontoon na di nuyu tuur mi nga xamante ne mooy Alaaji Bolon Sonko mi nga xamante ne mooy njiit GFA euh, ak naatoongoom ñëpp ñu moo ànd ci jotaay tey maalon faaɓe ka fof janto jenaba na yalam ka fayit keto kuntila ka bamer ka kana ñi nomination aten ba fanan konton na e nee na di nuyu wat euh, jigeni kuman Gori, góor yi mooy ajaratu mas ah, Maas ñu ngi ko gërëm di ani Omar trawale aka Omar trawale lamin Silla aka lamin Silla ani Ensa Bajo aka Ensa Bajo ani moto malmel boobu tanan diaspora ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xamante ne ñoo diaspora ñëw atan suñu mbir na nomoño fulol kontonna aja may ndour an aja salidabo mbebe kontonna dëgg la nee na kontaan na loolu di nuyu waat ñaari soxnam mi nga xamante ne awa buuru këram aja may ndour ak seet bu amul añaan kooku mooy aja ratu ah, am ah, dabo sali dabo a naatal ñi moo kenn dool mel be bàyyee ko no tey ak yéen ñi nga xamante ne nit ñu baax ñi nga xamante ne ñoo nekk ci biir bàyyi bi fii tey a tel ñi moo kallankewlu mu ne nit ñi dëgg wala nit ñu taaru nii. atel ñin Gambie din kenn doolu. yéen Gambie doomi Gambie yu baax yi. baal bee kontoon na. nee mu ngi leen di sant di leen gërëm. bi na bi ntadiyaam la baake. mu ne tey a waxam du si bëri wala du mën a sori si kaddu. bi mu Gambiankool tentu lu moo ne tey bés ngërmande Gambian si la. Gambiankool bee tentu. patitol ci turi United Democratic Party and indeed Dabakunda patitola ci turi United Democratic Party and indeed Dabakunda askanam mi nga xamante ne mooy Dabakunda aleñi wakilo me mu ne ak déggu jàmbaar yaa yi ngeen def nii lan lan yaa men fana soto nte kunding to mu ne wóolu dañ ko wóolu moom ci boppam wóolu wante li ñu am ci moom kan tombong di ko taana kata Eh, di ko dem nominate ko eh, kumba fanan be mu ne ngermande bu bari mu ci ñoo xamante ne eh, GFA la GFA ye kooku mooy GFA members yi mel fana liye mel fana liye di sonota ko ñi nga xamante ne ñoo sas seen bopp ne i ko ita londi la ñu ne duñu mën a taxawal candidate bari be sembo taala kaake UDP kooma waaye ñu ne dañoo jëlee seen doole di dooleel UDP lan noo saabu mone wolu ante buko indi lolu wakilo me yo saba ni gambe ak gam kano me yo sabu ak gor gor ak wolu wante ak jambar ya buko lolu ame be tant la wala be jay la wala neena kon ba husen neena mu ngi len gatcha ngana ma ci lolu gambe an ko le me itandi bi mone gambe an si lu ñu wone tey wolon ka boko ifata le manza me membe sirimbi ifata wala la e wayo deug mo mune Gambians yi lu ñoo wonee tey mu ne buur mi nga xamante ne moomu yoree sa réew mi bugg ngeen ko bañ ngeen ko te gedde ngeen ko sax dafa da ngeen gedda loolu tele red ka dinna alko ngata nga yitande adama barola adu ngole ke bi degale mu ne ñoom Gambians yi yéen a ko joxoon red card te red card boobu moom la wóoree bay di ko wone adama ka adama adama adama adama di ko wone Adama di ko wane ne yellow red card go out bi moo dee wakil baale ke bi mu ne tey dëgg dëgg dëgg rek nit ñi wàccul nañ kabrin say mu ne depuis eight o'clock si suba fombe tembo men to ba fu ñu toolu nii moo man konko juubee jeeto mu kenn xoolu xiifaay bi moo man ti loola kandoo juubee mu ne kenn bàyyi wul sa daan naaj tàng na moo man kooku juubee jeeto mu ne kenn xoolu si dara tettaani ñop ñu ne gambiyan si ñoo moo ñu jaral loolu si looti lookoto ñu taxaw ci naaj i si konkota ñu jëla xiif si taamay sing la ñu dox seen tànk kabrim kabrim eh, kabrim eh, batil haadin eh, dale ko batin haadin highway kata ran deme ba Joshua ba westfield ba fi mu toll nii mbaal tant la wala mbaal jaay la mu ne mu leen di gërëm loolu di leen sant nga ñeen jikki ko nee na yaakaar nañ ne sibitilung Mon samedi. Ah, ici, bah, annonce le co. Easy. Then I'm going to want to Usain Numukunda Dabo nominate Nanko. bari dalilo men yal bi way dalil bu ko tax a génne tey wala on the 4 of December ko commencé kutoka tolo dëgg loolu mooy on the 4 of December ñu mun a ñu mun a ñu mun a fal suñu buuru bu bees aɗo ko nak mba kanne ñin sangal mel tambita mboɗo ko mbo kanne liggéey boobu moom la ñu nekk ati yu passé woon nii moom lañ ci nekk bari kabo saamala waaye dalee ko suba. loolu ñaantante aussi la kende ke kon dañoo war a takkal suñu ndëgg. suñu ndëgg bu baax. nga ñu tiisaatool mel dung. mu ne tiisaat yi ñoo sol nii. mbaa fa la ko jindi. ñu ngi ko wax ne na wàcc na wàcc. nga ñu tiisaatool mel dung. suñu tiisaat yi ñoo sol nii. mbaa fa la ko wiinoo te bàyyi la. ñu ne ko gañe moom ala kulli haal mënut a ñàkk. nga ñu tiisaatool mel dung. suñu tiisaat yi ñoo sol nii. mbaa fa la ko. mbafana ko daabole baro sin daabole ba wulindila ñu ne ñu ngi ko wone daabo moo fol moo fol baro de daabo moo ko war a yëkkati tamit nga ñin tiisaatol men diŋ mu ne ñu tiisaat bu ñu sol nii mbafana ko ñu ngi ko wone baro le maabaloo ma ey baro moo laalum wattalaal denkilol bee mu ne ñu ngi ko fecca wo dongle bee mu ne fecca yooyu yëpp tiisaatoo ladung bee ak lu ñoo tiisaat yëpp bee nafaamu menti yooyu yëpp lu muy lu njëriñ muy wolon ke sooti mu loolu mooy peer bu ñoo sandi saama la kay dalee ko suba ntenaatal bee mu kon bu ñu eb loolu al nga tan al nga muru nadulaal to mu ñun ñëpp ñu delluwaat suñu dëkkuwaay ngaaje ko mel mi yalon ko aba koye mantara nte mantara GFL eh, GFL and those candidate koma mu ne ñi nga xamante ne nekkuñu gannaawam indos candidate mi nga xamante moom la GFA noom ni tey ñi nga xamante ne na nekkuñ ci gannaawam ngakata be na kono ñun ñëpp ñu feye ñoom ñëpp ñu ñëw dugg UDP ibe kafumma ñoom ñëpp ñoo bokk ci ñun ngaaje ko mu ne gis na ne na kaatol mel bembulu suñu kàttan lu ñu yore i kana waari muumeke mu ne bu ko kenn jaay ngeen na kaatol ali ngeen garde mu ne nañu garde suñu carte yi alin kana so la a yela mu ne bu ñu nang bu ñu nangu kenn naxa ñu five hundred dollars yi mu ñëw nangu suñu carte wallahi fen fen yaalon ko a laftal ka doo koo teye mu ne geñ na yàlla képp koo xamante ne daf la bëgg liggéey ata kodoo di la yaa fay ko carte o fay ñi kooku du la joxe xaalis di la sas ne eh, sànni ma carte walla taafala ko abe carte o sanna pour ani mel be ñoola wul kana gañee waaye kooku nekk di nekk eh, du nekk ay enam ne di jënde carte sa loxo déedéet aɗum alsiñil lon ko fen fen yaalon kaafo ko iman carte o fayi te na ngeen xam ne képp koo xamante ne sandu carte nit ñi man sa kunda siita nguur gi toogee ate wo man sa a telle carte o fayi wala ka ila carte o fayi baliya wala yaatnaɓe siila mu ne képp koo xamante ne sandiwul carte ci UDP nga sandi carte koo xamante ne amul njëriñ du am njëriñ ku ñàkk njëriñ kooku soo ko sandi carte yéen ko tànc Kandidat la campagne manager ti mu ne kon ñun nañu campagne manager si suñu candidat bi alimbe ngata nga carton ñini ala candidat ye horomo ani mbuña kono ah ba usen waxalat na de mu ne ñun ñëpp nañu eh, ñu sacrifice ne ñun ñëpp ñu anda yar ak tegin ñu wutu carte ñu sànni suñu candidat ntel dental ma ñoo wari londe mu ne ñun ñun xamuñu boré de ba ni même fay ma ñoo waaye ku ñu sonk bore tamit mbaabulo be le la de e dinañ jële côté yépp ci moom insi loto suppo ke mari la loto suppo insi mari loto suppa <laughs> ba Ousseynou nee na cappo ñoom duñu boree de waaye ko ñu sonku bu ko defee yow danañu wolbar sa tànka ñu juutal sa boppa ñu ne cukku ci suuf si pantal fanan te bu ko demee ñu ne la dàmm tamit si booloo fanan fo ke ñaa be <laughs> Eh, mun nañu la daani ba hoos sabot bi yëpp kantel man ñoom a kaba ko ñoɓon kontel moolonde bar bitu nin fen fen yem man boole kele la waaye neena xamut beneen boole bi de waaye boole bi moom pare na ci bu ko buga sonku nag na nga pare ci loolu adun ko nga foña men fana mantal mantra wasula ka foola waroo la waaye neena lu ma wax tamit nekku ne dafa puugar ci mbooloo mi be ñoo saboo kala men na wono ila miraya ila wala mu kuuti me alam ka wala mu yo sabotinte amen ka amen ka jamara siare ba ni jamara siare fana mo wallahi billahi tallahi a partir da ñim banko mais si kafo bondi mais UDP ta si dëggra ah ba nee na moom du songo ker waaye ku ko songo ñun du ñu waaye képp koo xamante ne yaa ngi pare pour ñu bëre ñun duñu saaga duñu xuloo duñu kurpeñante ñun xalaat bu rafet boo xamante ne la yóbbu réew mi la ñu wecc wantaak yow te wallaay su fekkente ne mbooloo tam lépp dafa bëgg mbooloo waaye su ko xamante ne danga ma soxlaa bëri mbooloo mu ko xalaat la ñu nit am kenn mënu ko fi am te kenn ko fi am te ku ko yaakaar zéro tili dantan ñaato al ɓe men jala wolon public servants mo wolmelan ko ɓe civil service eɓe ɗo kono coopération ele e ɓeen asobiyol dunna wolle la ye funtindi yaafa ko ye sembosol le o yaatira memɓol hakkilo to memɓol sondomo to anita mbiyamum kan e manque killinti degala mune suñu demee fanu yi neewre ci kanam da ngeen gis ne ñeneen ñi nga xamante ne public servant civil servant ñi nga xamante ne ñoo liggéey ci yi dinañ da ne ñooy ñu sol leen ci saat ñu ñëw bokk ci jotaay bii fii ñoom lu ñu leen sol wo du nekk benna eh ko ñim tilmu wanin kilimbe yaay kam banko kan eh ñaar fukki fan benn yaa ngi wër ci réew mi ntaata banko la bele to e, dem na fu nekk ci réew mi kabrin kabrin koy na fa sonkunda ma dale ko koy ba sonkunda laal na fu nekk ngan na five point agenda wa Gambian kolma mu suñu five point agenda bi moom la ñoo jaay Gambian si adu ngalo ne ka ko Gambian kol five point agenda ñi ya sanne te xam ne five point agenda bi Gambian si jënd nañ ko ba pare adu five point agenda funding ko la ko be kuma ya rinje bakale te five point agenda bobu e, mbiri ndaw yi e, lu am fula fayda la ci biir adu funding ko lu ku ko na ilafta menna wala mbara ba ñoto ko football wamu fandin kewol la haaju baaleti te lii tamit am na ñoo xamante ne lii bokk na ci yeneen ndaw yi nga xamante ne wérgu yaram eh, tàngal yaram te xam naa ne football ak yu mel demante noonu loolu yéene bu rafet la ci ndaw yi ntinala independence stadium the home of the gambia football ntinala jeto man fendin faaliye lafta menkela la pour sporting football in particular ka barakandi ñimba ko kan ka jayta ñaato ñimbanko kan Eh, du ñu ñëw fii bug ñu mitin fii ñu tasaaro déedéet laalu ñu ci mbiri football parce que fu mu nekk nii kër football foofu la ñu nekk nii fii mooy bàyyi bu mag bii ci dëkk bi il faut ñu wane leen ne ñun ban yéene la ñu am ci tàngal yaram ci ndaw yi ci wàllu football fu ñu leeral leen ban yéene la ñu am ci ñun koytantelmale kaaba ko football o fanan mu dookuwoleti is a source of employment wo koytantelmale ndax eh, leeral na ko nag tamit eh, football alhamdulillah développement la mi nga xamante ne boobu tamit bokk na ci jëm kanam réew mi tamit léeral nañu loolu wala na di various football academies nol me lalan ka ko ibe banko kan united democratic party mansa kunda ba tunne ko dole kaje ko nya academies nolu ye quality footballers nolu ye trainer to ye bondi jeto nena kon UDP nguur nguuri UDP dana leen jàppale bu baax surtout académique football mi nga xamante ne mooy rek réew mi ay nawetaan ay dementi noonu dana leen dooleel loolu bu ko defee képp koo xamante ne moom mooy yëngu bu ko defee nga am ci njëriñ. Aduna national football team the Scorpions bajara kabo ko isulata mella i bo sodla le sonna nasna timbitala wato wati i malurin binala wale trabanko kanjato ye fudi ni stadium o kono i malurin nte sonna wala men ko sabu lack of proper funding ti mbawdintel bo di lela le tegna anena afum nekani lal nambir mi ngahamantane kokumay gambia national scorpion amune nekani kani bawusene mune solendemi ci combat ñibbi ci gàcce da ngeen ko gën a moom wàllu gàcce mu ne moom su doonee président mu ne gàcce boobu doom dana leen dooleel su leen dooleel ngeen am ndam ngeen ñu ndam demoon ndam indi ndam ngalo ne suwo kuta bata kata bata kata nena mbe na national organizing committee mbe be tent la mbe jayla nena xamna ne budina deug la nit ñi dañoo yende seen tank waye bet lool di gërëm national organizing team mi nga xamantene mo tax ñoo tax taru e jota bi taru ni aramiso nimbi tema ye doku balake pour kanyinyo nyinyo organisation ni kasot no na dale ko alhames bebes niki tay ah ñom ken munu tëdd ken munu ndelew bu dee bëccëg ñu ngi wor ñu ngi def seen cemtu lay kattan ñu mëna gis ne mbiri mi alhamdulilah mu nek jàmm te ñu ni dal ci ñu bëgg ci musol la ñaaton ko aja sukana ka mbaa fananteentu la aniŋ Gambia musool bee eh, suñu yaay mi nga xamante ne mooy njiitu jigéen yi eh, mu ngi ko gërëm di ko sant ci tuure jigéen yi Gambia yëpp aja Sukayna Ka Gambia musoolu eleven thousand six hundred plus walla yeen nominate dëgg mu ne jigéeni Gambia fukki junne ak benn ak nangam ñoom ñoo koy nominé tey jigéen ñi ñoo ko nominé. Kewlu amanka tanati bari ke wul woro anin feng wala nominate so muso lafta dublela aja sukaina ka inila molu congratulations mbal tent la mbal jaila albalore yudi fe atelle be yudi be manza kunda lon la nyimba ka tel musolo kabri 1996 atelle baka so congratulate la bafule thank you very much ah uh... thank you very much jërëjëf jërëjëf Adja Soukaynaka nee na dëgg la góor yi tamit bokk na ci ñi nga xamante ne ñoo ko nominé waaye boo gisee jigéen yi gën bari boobu du dara pour taaru jigéen ñi rek jàppale leen ko rek waaye Adja Soukaynaka mu ngi la wax gàcce ngaalaama sa taxawaay bi rafet na lool. nakumada bang boyo kelam menti moo ne mujjantel kàddum mooy nag. wamanke pour UDP n na GFB ni mel be ñoo bulu amanke ntel damma na kumati mu ne lii nekkul kaddu UDP rek wala GFB mi nga xamante ne ñoo bokk mbir mi ñu nekkul na ñu rek ñoo moom kaddu bi ñi mu Gambian ko bele la kumati mu ne lii kaddu Gambian si ñëpp la Gambia politicien ol ñaatonkol bele la kuma kuma ba bele mu ne lii kaddu politicien Gambian si ñun ñëpp ñoo moom kaddu bi mbe me yamar la waron ka fo ko ŋaaje ko mbe du nañ élection men kono mu ne lu mu leen di xeelal wala lu mu leen dénkaana mooy ne politique bu ñoo dugga nii wala campagne bu ñu dugga kenn ku nekk na nga def sa cem kat cemta lay kattan sa parti membre kenn yëngatu ci fitna alim be na banko la luwaal alim be nga buña ñun ñëpp nañu orma suñu luwaal réew alin kana dun kuuto men ɓe wul wulla nyim banko kan moo ne bu ñu duk eh, mbir mi xamante ne dafa indi fitna ci rew mi kana man fo fana men be fitno wulla nyim banko kan te ñu bañ a wax loo xamante ne dafa indi fitna ci rew mi mbee si ñin na ko ñun ñep ñu nangu ne mbe ñi nin kan eh, li ñoo nekk di wuti nii ñi feŋ fenglo moo be ñanta yaa ñinin mo ne yef la yoo xamante ne war na kenn ku nekk nga wuti ko bari wo naa kenne ko mbe konnante yakela nda maltema way lolu bu mu tax ñun nen ñu nono lolu dedet wo mañana kala mbe ño kajafila lolu warta tax ñun nen ñu nekk di hasante ibe song lala mo la me yalla ka ka manke toñati ma nga tim tuumal nit loo xamante ne andu ta dëgg ninte fen fen fo mu ne moom lépp lu mu wax. politicien o politicien ma janto. koo xamante ne politicien politicien la. isaa lon ko nga dalil lool sot soata la isaa lon kaa ko tooñaa lu maati. kon nga xam ne moom am na dalil bu wér te dëgg la. bari ka sii doroŋ ka moo ka sii doroŋ ka kumoo dada kaa fu moo ma a du ka dal nga fatawo ma. mu ngi sakku ñaan mbooloo mi ñëpp di toog rek di di jëw nit wala nga tuumal nit loo xamante ne kaddu bu ñaaw mu ne ñun ñëpp nañoo bàyyi loolu. aɗum telmeli af ka muñaton kooti aliŋa soŋ aliŋa soŋ hakkilo wo yen mara ali kana kana soŋ njuso yen mara degere awjani yaɓanne mune nañu nangune suñu hel mu yoruñu waaye bu ñu nangune suñu xol mu yoruñu nin sonta kon hakkilo yen mara woton na bankoñi tenkun damane ɓe taata ñin banko kan fitnata taata ñin banko kan ne mbeɓe na politiko kela le kaka sanawya kono ko jalibaya la ko jalibaya fo ala denk tool kon ñaamee mu ne su fekkente ne ñun ñëpp jaayante nañ ay xel xel bu rafet kaddu bu rafet ah, doxalin bu dëggu kon suñu réew mi danañ danañ danañ dal ci suñu réew mi te dinañ ko yóbbu normali nu ñu ko waxee comme nu ma ko waxee lu Jaliba Kuyateh lu mu wax ci kaddu woyaane bi lu ma woyaane so mbaal bee tentu la kon mu ngi leen di gërëm kon ni mu bata sama mu ne suñ fi jógee ëllëg wali mbe nga tax campagne la Ousseynou Daboye pour Ousseynou Daboye gagné dëgg la kon ñun ñëpp nañ dem campagne ci Ousseynou Dabo pour Ousseynou Dabo mu nekk président of the Gambia al nga laa xeeratu wasalaam waaleykum salaam Bensouda Baye Force Development Baye Bensouda Baye Force Development Baye Loya Dabo Baye Force Party leader entertainment oɓe continue lale isesi demanding Nyam Moli Entertainment Olke. Mike, over to you.